yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi waaw kon rek may santaat rek sëriñ Bamba di sant nag sunu jëwriñ yeeg sunu kilifa yépp rek di ko tàmbalee ci sëñ Afe Buso ak sëñ Fàllu Mbàkke mii ak sëñ Fallou Boussa mi mënu booleel Boussa Bali muy jëwriñ ju mat jëwriñ di njiit lu mat njiit ndax kat ñun dara xamuñu dara waaye mo mii ñu àndal mooy sunu lépp moo nu jàppale moo nu dimbali lu nu man mooma kon noo koy ñaanal fan ku wér ak mu ko àndal di góor ñi ak jàmbaari sëñ Bàmba yi ci sunu ginnaaw. bëgg liggéey bi ànd ak ñun ci liggéey bi te tàyyiwuñ toqiwuñ sonnuwu nag fu nu jógee ñu jóg te dawuñ ci dara kon noo ngi ñaan Mbàkke nga ñaanal nu nu yàgg fi te wér ak kàttan ami xéewal ba liggéey bi kenn du na ci man lu fi di jëf mbaa nga di ko fi def sunu borom may nu ko ban defe ko noonu am nga ko nag Mbàkke mën nga ko te tëwu ñoo ngi la koy ñaan yàlla nga nu ko may ma yàgg sama mag yi lool nag soxna Xadi Mbeng ngi mii xam ne sama mag la sama jëriñ la sama lépp la noo bokk bëgg-bëgg ñoo ngi ñaan ànd bi yàlla na yàgg yàlla na ko sëñ Bamba yàggal yàggal fi suñu sëriñ yi ndax kat ñoo nu dooleel man ñoo ma kon noo ngi ñaan Mbàkke yaaram nga ñaanal ñaanal jàmbaar yi ñu àndal ñu ngi nii nag ci suñu ginnaaw ñëpp a ngi jërëjëf Mbacke. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokk soxna fi teew yëpp sëriñ Fallou nee na mu ngi leen nuyu ki tur seen afiya bu sa imaam ak ki tur mbooleem membre daayira bépp te ngeen bokk ci biir nee na mu ngi leen ziyaare ci weeru tedd wi ñu nekk di weeru njëggal di weeru gorek sawara di weeru xéewal nee na mu ngi nuyu yéen ñëpp di di am mbégte lool nag ci liggéey bi ngeen def tëm rëy lool mi soxna Xadi Seck soxna Bousso Seck soxna Xadi Seck soxna Xadi Mbeng mu ne liggéey bi ngeen liggéey nii ci jumaay Tuubaa ji gis na ko te xam ne ne Pastef danga moo ko lal te loolu nag du hasard ndaxte ñëpp xam nañ ne jigéen ñi moom kenn demu ñu des isaan ba muy door jigéen a ko njëkk jé gëm jumaa ji ba mu koy door xaas ba njëkk a jigéen la ko dénkoon kon bu jigéen defee wàccuwaayam ci biir jumaa ji muy set gi xaay gi ak toppatoo gi du asaar waaye nag ki tax ngeen di def mu sëñ Tuubaa moom ko jëfal mu ne moom bu lay fay danga xam ne jëfal nga mbër mu nekkoon nag li ngeen def waxut rek jàpp ci ndoge yi mel noonu waaye jumaa ji nga xam ne ndigal amoon ci set gi ndigal la woon sëñ Saaliw moo ci gën a ñor moom te taxawaay bi rafet lool mu nekkoon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp ci loolu waaye nag ñu xam ne liggéey bi ñu liggéey nii du ñu ndaw ñoo ñoo ci war jariñu ne ñu bàyyi xel ne suñuy maamaati maam nekkoon ci ceddo ga suñ mbokk yi jiitu woon te amuñu woon lii pasaf na bu rëyee rek dana ëmbaal ñoom ñëpp taxaj na ci ndax bale jumaa walla buub jumaa wala taaral ko ci soxna moom daa mel ne ñaari bëri si noo ki nekk ndax ñëpp gis na nañ xam nañ ne ëllëg mal soxna yi nekk ci bar ci kër ca ajjana ñii joxe seen coone jumaa di ko salaka baleka taaral ñoom duñ joxe ak can can gii joxe mooy seen seen mbale mii kon bu jigéen defee lool nag jëm ajjana di xaar ba di sa di xaar ak mu jofet ñu dikk loolu ne loolu lépp tiyaaba bénéfice la kon yokk leen Pastef bi yokk jom ji yokk fulla ji yokk Pastef bi te xam ne fii moom lu faa def lu ne bu ëllëgee na ko gis liggéey fépp baax na nag liggéey yàlla yaatu na trop bar na buntu lool bar na ay bërëb waaye jumaa jii nag jumaa Seexul Xadim mu ñaan ko yàlla ba yàlla may ko ku fi ku fi ñaq doo ko rëccu mu ne kon ngeen ko yokk Pastef bi yokk fulla ji yokk jom ak amandoo bi te ngeen def daayira bi mu ñu mel nañ mbokk ndey ak baay na ñëpp jàppante fonkante wóolante joxante loxo ndax mbooloo mooy doole te li ngeen bokk nii moom moo raw mbokk deret bokk àndal gi sëñ moom moo raw lépp nee na mu sant baax jëwriñ yi am na yéen sëñ Fall bu saak ñu mu àndaloon sëñ bi nee na tamit liggéey bi rafet na lool sel na lool juba gi am na dëgg gi am na ki tax ngeen def mën na ko yàlla na fay jërë ngeen jëf ci kàddu yi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi